s animation ak lépp lu leen soxal ci Bawol Média FM su fekkee émission yu jàlloon la ci Bawol TV wala émission yu ngeen bëgg a xam mën ngeen a dem ba tey ci www.youtube.com slash user slash Bawol TV direct كلما تقود سمامي لرسياتي Ahmad Souleymane bi sarfi al-masiyaat kayma taqud simaam al-rasiyaat adan idha izdaada qalbi huzna bahjatihaa wa wajjahat li hadaayaa bil-mabarraat أمسكت طيب نفسي كي أبيدها وولت ميل قلبي الهديات وخاطبتني بما يدوم بغبتها وأزغرت صدق وعدي بالرقيبات ثورا تديني وتوليني دوائفها وتارة ليتهدي بالبشارات لكن علمت وإلمي سوف ينفعني بأن سات مين في المقالات كانت موائد وقاب لا مثلا وما موائدها خير الكيانات ليست تريد إلا قد أرت كدرا من بعدي وتجاهي بالمكيدات ولا تريم فإلا أثقلت دررا فيه وتؤمنها المن في المولات فارجعها إلى ما لا يتقنني بي جنانا ونورا وفياتي وما القوانين لواتي لا تكافئها سلمى وإن وليلى في الخريدات هن القواني لواتي لا يفوز بها إلا الذي استان بي تقوى بتاعاتي هن القواني لواتي غير ماكسة فيما لا من قيام واستجماتي وأراد الله دينا لا يقاربها عين ولا درن دمت نقيات أراد الله أدركم مقدرة تعت القباب من البطاس لمات فغنا القناديل نارا في دعاء بهم يخزي المقدر يدم فوق السماوات له مجد مرتيب خالد قدير له انترى برجال يريد جنات مرآة أزواجها أبدانهن نهب إنه أمدانها يجري سراجات ما مسهم ملد ذو الألف أنفا سير من الوجم ذي والفل والآسات وليل يبقين بالأزواج من بدل وباجة النور تنمو كل ساعات ولا يزلن أثارا عندهم أبدا أرم بهن خريدات فتيات ولا يذرن إلى موت ولا ألم بلا يذلن مقيمات محبات هنا القوانين رات القلب تاب بها يقارئن على سلمى وإملاتي وما روى اعتقادنا إذاتيا بتوبة ونفس لتاب بتوبة وبإسلام إلى ملك وداد بالمصطفى كنز البريات أيلمت نفسي برب لا شريك له مع الذي قبله سلي مهاجات علمت مالي لرب لا سبيع له مع الذي هو أقصى مرامات علمت مالي لرب لا نزيل له مع الذي نهجه خير المهجات علمت نذير ربي لا مهين له ما الذي دينه خير الديانات علمت نذير ربي لا ابتداء له ما الذي خطوى غير تاريخاتي علمت نذير ربي لا انتهاء له ما الذي قربكم همات علمتنا سيرة جل أن ولد ما الذي مدعو صرفي وادات علمتنا سيرة جل أن خرد ما الذي جل أرجى فقيراتي أسلمت نفسي لرب جل أن وسلم الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد قيما ولا ممنياتي سلا علي الذي أنا مراتبه فوق المراتب في المعلي وفي الآدي والآل والصحب والمستمسكين به أزكى صلاة بها تنفير ونادي صلى عليه الذي ألا أموتليا فوق الذين اهتووا أهل المقامات والآل والصحب والقاضين ذمته أنت زلات بها في الفتوات سرى علي الذي أرى كبوته أتى استدار به أبو النبوات ولا للأسد والمسترشدين به أربع زلات بها أوي فادات جرى عليه الذي أتى موجدا أغزد جبيسي درا مركانات ولا لوجد المستمدين به أزاد ثلاث بأبي كرامات شرع عليه الذي أتى تقدمه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 bokki jullit yi bokki tali bi yi ginnaaw bañ leen nuyoo siyaar leen kenn ku nekk ci turam ak santam ñoo ngi jotee ci nuyoo bi ak siyaar bi euh, ko mu yàgg fi loolu sa ànd fu wér waaye naka noonu ñu ngi baax ki nga xam ne mooy euh, xalifa Baye Fall Serigne Cheikh Jëmm Fall suñu borom yàggal ko fi loolu ci wéral ko ba mboolem li nga xam ne moo nañ fas yéene liggéey ci yoonu murit ñu daal di koy def comme ñu ko bëggee di nuyu mbokki tali bi ak mbokki jullit yëpp euh, ci nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di wax ne yàlla sunu kàddu fekk la ci jàmm ci barke borom Touba. Euh, ñu ko defal noonu ñu ngi fas yéene dooraat li nga xam ne mooy seen émission bi nga xam ne mooy seen ziar fii ci rajo Baol Média FM ci dëkk bi nga xam mooy Mbacke Baol dëgg ma dëkk bu sell ba ci Touba di jégalu bu baax a baax nag li nga xam ne mooy euh, alxames bi passé nga xam ne amutoon ñu ngi ko jégalu bu baax a baax xam ne tawatu yaram moo ñu xawoon na dog ah, ñi waaye sant sant nañu yàlla bu baax a baax di jégg lu baax mbokk yëpp ak taalibe yi ak borom Tuubaa li wax ne émission bi nga xam ne mooy seen ziar daan nañ door fii ci rajo Baol Medias FM di leen ko baaxoo di amal seen mbokk Ibrahima Diop fii ci rajo Baol Medias FM daka noonu ñu ngi na ñi nga xam ne ñoo ne tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla suñu borom subhanahu wa taala yëkkati leen ci jàmm salaam ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci ñu la caabi te ginnaaw yàlla suñu borom subhanahu wa taala uh, ubbi leen ci jàmm salaam bañ bañ caa delluwaat la nga xam ne moom defal ba dellu ci suñu borom daal lu leen ci tàggat ba bañ caa delluwaat ak barke borom Tuubaa naka noonu ñu ngi nuyu bu baax ñi nga xam ne ñooy kilifa diine ak kilifa aada yi yàlla suñu borom subhanahu wa taala suñu kàddu fekkal ci jàmm di ñaan bu baax suñu borom subhanahu wa taala def ci réew mi jàmm ak ak même rek même réewum jullit rek suñu borom def ci jàmm Ah, di ñaan bu baax na li nga xam ne moom lañ dëgmal nii muy bis bu tedd bi bis bu sell bi nga xam ne moom lañ dëgmal muy bisu eh, tabaski di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lépp loo xam ne namm nañ ko yàlla suñu borom subhanahu defal ñu ko te lépp lu ko ci fulal ñu ko defal ñu ko fi yàq yëggu ci barke borom ci baax ah, képp ko xamante ni suñu borom dégg yàlla suñu borom subhanahu ko ci barke borom ci baax ku mel ne Serigne Fallou gars yi yëpp rek suñu man man cee eh, man cee teral borom ci بداعي ويقيني كل حماتي وهو الذي بر يهمي ndeysaan nga xam ne ñu ngi ziar bu baax kilifa diine yi kilifa aada yi comme ni nga waxee woon léegi rek euh, di wax ne kenn ku nekk rek ñu ngi lay jox ñu ngi lay suñu kàddu ñu ngi la koy wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu li la wax ne saa yu ngeen déggee li nga xam ne mooy son Abdoulaye Sa ay Zoygué bi rek ngeen xam ne émission daal dinay door fii ci rajo Baol Medias FM بجاهي من وزارة خفياتي وابن ربي الذي لا دق يدركني sëriñ bi nee na ngeen dal nagu lay dal nagu lay dal tan toog déglu xasida yi nagu lay dal waaw nagu lay dal قد التزمت له في كل معصية ما دام عقلي ميتين لدياتي فكيف أدركها من ثغرة وستة أذن الوظائف طرا والوسيلات وكل عام توافيني نوائبه بل كل وقت وافيني بمناتي نار بريئة قول قريئة عمت نسيئة كل البريات وهو المراس نسي لا تلتام به لما دروا الكلام في حكاياتي ولم يكن من غير آت مرتبة إلى ومت به وقتا من الخاتم عداد الفضلاء ماتوا به وأروا به من الله فوزا بالإجابات نالوا جميعا به قبل ولادتنا رام به من مهم الغازات بجاه غاز في الغمرات آدم منه بعد الإباد من أنهار وسنات نادى بإله نوحا بسفينته وجاء فيقوب البليات بالمشتبى أخرج المنان يوسف منه سجن متين ومن تلك القيابات وسائر نور مولى انتزع فنجاه بالمنتقى فتناهى كل قمات في قد النار إبراهيم باردة ما سلى بما فاق وعداده ميل الرقاع ذم نار لثلاثه ودرت قاتبه يوم الجماد وجد قدانا من ذوق ومن عدم عليلة لا تجا بعد أموات من القوارق السير سرء مجرية وزيد كلمه يوما بأصوات من أعلى أمري إصلاح الإله به بالدروي والجن ليلا للسماوات فبات يسريه وجبريل سلامه فوق البراقنا أحسان آياته والأنبياء وكل المرسلين معه تعلموا من آداب العبادات بعد ما هذا من ذر يقص به وقد نعاد قبل بالمناجات وغشى بنبي لم يغن قد به وليس يغشى به مال الملعاد فاب ذي ليل قبل المجرين هما قد كان به درسانا من ابي اسماك تلك الخلائق ما زالت تؤيده إذ لم يزل كله يأتي بآياته أفاضا بكتاب أهجز البلغاء وكلا مثله أهل الفضاء أكرم به من كتاب قد سبا إلى فأنقص صعب ترا من قباوات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وسراج مستقيم لنا فكل من آخر لاقى السقاوات وهو السمايل أهل داء كلهم ينجي زينك من خير وآباد ومن يرم مشلة لله منقلبا عمهم فقد بطل حمل وزالات فهو السبيل الذي ما بي من يتم لمن يديننا مفتي رقبات أمر ونهي فوهد والويد مال ndeysaan mbooloo mi mbokki julli ñu ngi jégalu baax ci dog dog bu nga xam ne moo amoon léegi ñu ngi ci jégalu bu baax a baax fekk na fam lu ñu doon liggéey tuuti ci machine yi rek ba nga ba nga machine yi moo ñu jàppoon noonu waaye ñu ngi jégalu baax a baax daan xam naa bu ñu jógee ci uh, kooku nga xam ne mooy Serigne Abdoulaye Seye Gueye dañuy daal di dellu dañuy daal di seeti ki nga xam ne mooy Serigne uh, Ousmane Diouf uh, ci jolofal ñoom jàng xas na mi nga xam ne jàng xas na am solo yi waaye naka noonu mbokk yi ñu ngi leen di baaxoo di leen amalee ci nga xam ne mooy émission bi fii ci rajo Bamay FM waaye ndeysaan képp koo xamante ni rek bëgg ngaa dugg ci euh, émission bi si kanam tuuti incha allah rabbi danañ dëj euh, ligne bi ngi daal di mën a dugg incha allah ñaan di ñaan ki la neex ñoo ci ànd ak yow

على صراطك المستقيم وعلى أهل حق قدر المقدار العاصم وجلاس الأمداء جالبة إلى الإيمان والإسلام والإنسان إلا سعادة المحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخطايا بعد الودايا قد سقلت أو كتبت أو نزلت إليها أبدا آمين يا رب العالمين كما اتقنا بائر الإن والولدان في الجنة والمتقون جل من هذا الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بلا غلام la bara la safa وعلى Serigne Matar Ka ma nga fale boo ko tey mottali di ko ñaanal suñu borom yàgg def loolu te ànd waaye naka noonu ñu ngi siyaare bu baax sunu xare Serigne Cheikh Bey mu doon ci kër gi la liggéey ak mboolem personne yoo xam ne yaa ngi liggéey ci biir kër gi di siyaare sunu kilifa sunu xarit Serigne Modou Diop bu baax Serigne Fallou fàttaliñ ko ak Serigne Mor Talla Dieye ñu koy siyaare bu baax sëriñ Xaadim Njaay bawal ma jaamam toon ñu koy ziar bu baax ma nga ci diwaanu Dakar ñu ngi ci ziar yàlla ko suñu kàddu fekk ci jàmm di la wax ne sëriñ Xaadim namm nañ la lool namm nañ la ndeysaan di ko doon ku mbokkul ndaw ñu ko xamal léegi rek incha allah rabbi ci kanam tuuti rek danañ tijji li nga xam ne mooy léegi bi kenn ku ne mën cee dugg mën cee jaar ñaan ki la neex ñaan ki la soob ci jàng bët xasida ne dañ ko xaaj ay quelques bu ñu incha allah ba ci kanam dañ dugg ci wàllam si karsi incha allah ba ci kanam ba ci kanam incha allah rek naat ci tijji ndax dañuy wax ne lépp rek la ñu ànd ak ñun lépp la ñuy doxal lépp la jàlle suñu émission ndax dañuy wax ne rek yéen lañ fi toogal yéen lañ fi nekkal lépp lu ngeen bëgg rek ci li ñuy dox incha allah rabbi waaye ndeysaan ñu ngi ñaanal bu baax sëriñ Abdou Fatah Mbacke yàlla na suñu borom ko lool ci ànd fu wér di ñaanal baax ki nga xam ne mooy sëriñ euh, sëriñ ndeysaan sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacke yàlla suñu borom soxna yàggal waaye sëriñ Mountakha Bachir mu toll ñu ko ñaanal bu baax di ko yàlla suñu ci wéral ko ndeysaan mi ngi ñaanal baax Serigne Bassirou Mbacké si Abdou Khadir yàlla suñu borom taala yàggal ko fi lool ba li nga xam ne yan bi nga xam ne moom la yenu yàlla ko suñu borom taala oyofal lool si boppam barke borom Touba ndeysaan maa ngi ziar baax sama xarit soxna maam Awa Diop moom tamit sama xarit la maa ngi koy ziar bu baax soxna maam jaare gi fàtte ma ko euh, Serigne Abdoulaye Niang moom tam fàtte ma nga ci jamono Ndakaaru ndeysaan ñi ngi siyaare bu baax sama xarit Serigne Kabou Mbaye moom tamit ma nga siyaare animateur ba ba benn FM ak siyaare Serigne Khadim Faté moo ko di siyaare baax sunu kilifa sunu baay Serigne Mortala Fall moom tamit ñu ngi koy ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci kër googu rek di benn FM ñu ngi koy bu baax a baax ndeysaan maa ngi ziar bu baax ah, sama xarit ah, Serigne Ibrahima ci oustaz Xalil maa ngi ziar bu baax di ko jaajëfal Fatima Serigne Abdoulaye Diakhaté ma doon ñu ngi ziar ak képp koo xam yaa ngi yëngu ci daara Serigne Saliou Mbacké jooju ci niru maa ngi ji

هو الخافي ndeysaan léegi Ousmane Diouf ndeysaan ñu ngi bu baax mbooloom ki nga xam ne yaa ngi bëggee Serigne Ousmane Diouf ak ki nga xam ne yaa ngi koy ak ki nga xam ne yaa ngi safoo rajo Walwadia FM fii ci Touba di ci seer ki nga xam ne rek euh, ma ngi sama soxna sama xarit euh, soxna Thiola Diop ma ngi ci seer bu baax di ci jaajëfal waaye soxna Ndoumbé Diagne maa ngi ci seer bu baax di ci jaajëfal moom ma nga dëkk ba diwaanu Daaru Minam ca Touba. في البغاء الخطافا ndeysaan maa ngi ci siyaaru baax Serigne Saliou Ka ma nga ci diwaanu Mourtali maa ngi ci siyaaru baax ni moom day ki nga xam ne day bàyyi xel li nga xam ne mooy rajo boobu Média FM di ko jaajëfal baax a baax di ziare bu baax sama yaay soxna Sagar Mbaye baax Serigne Younou Souka maa ngi ci ziare bu baax di papa sama Serigne euh, Oustaz Siré Diop maa ngi ci ziare baax di ko sama yaay soxna ci diwaanu Taïf maa ci ziare baax. عارض حزب البرارة waxtaan kon mbokk yi kenn ku ne mën nga jaar ci ku bëgg a dugg ci émission mën nga jaar ci 33 976 68 99 976 68 99 wala nga jaar ci 30 103 78 94 30 103 78 94 wala wala mën nga jaar ci tamit 933 979 38 46 33 979 38 46 su ko defee boo duggee nga daal di mën ñaan ki nga xam ne jànkat bi la neex ñu ànd ci ak yow incha

ziar bu baax sama xarit ah, sëriñ Adama Awoumata ah, maa ngi koy ziar bu baax di ko jaajëfal di ko baax ndeysaan sëriñ ah, sëriñ Ndiaye Fatou moo ko ma ca diwaanu Dakar maa ngi koy ziar bu baax sëriñ Mara Mangane maa ngi koy ziar di jaajëfal ndeysaan <laughs> ndeysaan maa ngi siyaar bu baax waa daayiratul soppe Serigne Serigne euh, Saliou Mbacke ci Touba maa ngi leen di siyaar bu baax di leen jëfal ñi nga xam ne ñoo ngi waajal li nga xam ne si mooy seen daayira boobu seen sant yow ndeysaan maa ngi leen di jëfal bu baax a baax di leen ñaan suñu borom bu leen siyaar bu baax euh, sama xarit soxna Ndeye Khady ci siyaar bu baax ak sama turandoo Seydina Ibrahim maa ngi ci siyaar bu baax di ko jaajëfal ndeysaan أنا القديم أنا القديم أنا أنت الكريم قد الله

حوالي إلهي بهدى سيري بجاهه Talibaana xayru samay baxda sibaayi. ndeysaan Serigne Djily Sall maa ngi ko ciy ziar day bëgg ki nga xam ne mooy Serigne Ousmane Diouf Serigne Djily Sall maa ngi ko bu baax a baax Serigne Fall Faye fàtte mu ko Serigne Sadif Thiam moo tamit maa ngi ko bu baax a baax ci diwaanu Touba. waaye ndeysaan maa ngi ci ziar bu baax sama mag euh, sang Diop maa ngi ci ziar diwaanu Argentine maa ngi ci ziar ki ca defal waaye sëriñ Modou Diaw fàtte ma ko maa ngi ci diwaanu Espagne maa ngi ci ziar bu baax di ki ca defal Thank

أمام ذا كانوا بلا أما ثمة أما ثمة isaan sëriñ Fallou Galas Dioum jànkatu xasida Touba maa ngi koy ziar waaye di ko jaajëfal maam Thierno Gueye fàtte eh, ma ko sëriñ Mor Dioum moom tam maa ngi ciy ziar di ko jaajëfal di ko di ñaanal si moom daal sëriñ Mbaye Lo sama xarit maa ngi ci diwaanu Mali maa ngi ciy ziar suñu Moustapha Sène ma koy maa ngi ciy ziar baax di ko jaajëfal di wax ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala suñu papa fekk na ci jàmm sëriñ Moustapha Sène maa ngi ciy ziar bu baax a baax di ko jaajëfal fekk ki nga xam ne mooy sunu xarit Serigne Modou Thiaw moom tamit ñu ngi ciy ziar bu baax euh, soxna Ndiaye ña ngi sama xarit waaye soxna Dial Diop moom dañu fàtte ma ko ci soxna Dial Diop ku téer ma waaye di ñaanal bu baax ki nga xam ne mooy euh, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar comme ko waxoon seen door ba mu yàgg fi loolu ci ànd ko wér ndax lépp moom war di baax Serigne Cheikh Sidi Mokhtar mu yàgg fi loolu ci wér ndeysaan waaye di ñaanal bu baax nga xam ne mooy njabootu Serigne Saliou Mbacke Serigne Cheikh Saliou Serigne Moustapha ak ak rakam ñu leen ziar sëriñ Saliou Sylla imaam maa ko ci siyaar di jaajëfal ndeysaan Serigne Diap Mbaye man tamit fàttali ma ko Serigne Diap Mbaye sama xarit ma di ziar baax di tànk fas bi mag a mag ca Touba Serigne Diap maa ngi lay ziar baax di jaajëfal di la ñaanal suñu borom taxaw dafa la jàmm ci ndam dafa la ndam ci xasida yi suñu borom dafa la ndam ci xasida yi Serigne Diap maa ngi lay ziar baax a baax للبندلة maa ngi siyaar bu baax Oustaz Juma Ndiaye maa ngi ciy siyaar Oustaz Saliou Ba la tamit fàttali ma ko Serigne Saliou ñu ngi siyaar bu baax na siyaar

Eh, papi terere sabe sëriñ Pape Diop Pathé moo ko sama xaj ma ci diwaanu Dakar waaye sëriñ Malick Niang mu doon maa ngi koy ziar waa di ko jaajëfal di ziar bu baax baax di ko jaajëfal ak sama bàyyi sëriñ baax di ko jaajëfal sëriñ Ba ndeysaan bi ñu bàyyi ko di kee ki nga xam ne mooy mag a mag ca diwaanu Touba Daara Khoudoss moom ñu ngi ci baax di ci ziar Serigne Saliou Diop moom tamit ko mbëkk bëgg Serigne Xarim Gueye la waaye di ci ziar bu baax euh, ki nga xam ne mooy Serigne euh, Fadilou Seck moom tamit sunu xarit la ndeysaan maa ngi ci ziar bu baax di ci jaajëfal waaye di ci ziar bu baax Serigne Mara Mangane moom tamit di taalim Serigne Mbacke waaye di ci ziar bu baax Serigne Naar Diop moom tamit fii lay liggéey ci kër gi waaye diwaan ji mag diwaan ji wax ñu ma ngi diwaanu Taïf ñu ko suñu borom ñaanal ko lool suñu borom yàgg ko ndeysaan suñu xel de fi mu teg suñu suñu dégg suñu xaay mi ngi suñu xel daal dem ci ki nga xam ne mooy suñu xarit ba suñu jàmbar ci sëriñ Mbàkke waaye di ñaan suñu borom subhanahu wa yokk ay leeram te barsaxal Muhammad yi tax ñu ci barkeem barke borom Tuubaa yàggal fi li nga xam ne mooy ak njabootam sëriñ Moustapha Ndiaye ñu doon yàlla suñu borom yàggal loolu te ak wér ki nga xam ne yaa ngi dëkk ci moom ci diwaanu Taïf ak képp kuy bëgg bi nga xam ne mooy Serigne Khadim Gueye ak képp kuy bëgg Daara Khoudoss rek maa la ci maa ngi lay may li nga xam ne mooy Serigne Khadim Gueye bi la ci ziar di la defal Yeah. ziar bu baax ki nga xam ne mooy sama xarit ndeysaan maanaam ma tamit maa ngi fàttali ziar bu baax day bëggee ki nga xam ne mooy Serigne Khadim Gueye waaye tamit day bëggee li nga xam ne moo di daara xos di ziar bu baax mboolem ki mooy Serigne Xadim Gueye ak yaa jëfal yëpp seen biir ñaan su borom ko suñu kàddu fekk nañ ci jàmm ak sant suñ Modou Thiaré moom maa ngi koy ziar maa ngi ca diwaanu Touba Fall FM maa ngi ziar bu baax euh, soxna Awa Touba moom tam maa ngi ziar ak kër gi foofu ñu amee liggéey ci foofu ci béréb boobu di ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala suñu kàddu fekk la ci jàmm euh, di ñaanal baax di ñaanal waa kër dëkk boobu ñi xam ne ñoom Serigne Baye Fall yëpp maa leen ziar leen ñaanal jàmm Serigne Fadilou Fall maa ngi ci ziar ndeysaan suñu Fallou Fall suñu xarit ndeysaan maa ngi ci ziar bu baax di ci jaajëfal ak képp ko xam ne yaa nekk ci kër googu rek maa ngi ci ñaanal suñu borom yàlla suñu la jàmm si yàggal la fi mën si الجفاء سعد الوجود كل بجود اجعل وجودي فوق الغلايا سعد الوجود كل بجود اجعل وجودي فوق الغلايا

dèjà di ko wax ne rek mbooloo mi kenn ku nekk saa yu xëyee war naa wax jërëjëf Serigne Touba li xam ne moom lu neex li ak li nga xam ne moom la ñuy mooy lu neex li nga xam ne moom la gars yi jàng te xasida yu tedd yi xasida yu sell yi te xasida yu neex yi nga xam ne moom la ñu Serigne Touba indil fii ci àdduna ñu koy jàng di ko durus te xam nuñ ci wax te xam nuñ ci kon ñun war nañoo saa yu xëyee wax di jërëjëf Serigne Touba

ndeysaan maa ngi siyaar bu baax sama xarit sëriñ son yi ba mbuub maa ngi siyaar sëriñ son yi mu jàngal xasida maa ngi siyaar waaye fàttewuma sëriñ Xadim Kebe ak jàng ko ku ma lam kuy jàng xasida rek maa ngi lay ci di la jaajëfal ci li nga xam ne mooy sëriñ Xadim Kebe وسلم على المتابعين كل يوم في الوادي سلم سلم للمتم وكل يوم هاي سلم وسلم على المتابعين على المتمم مغلق يا سلي وسلم على المتمم يا يا وصلي وسلم على المدى كل يا على المتمم وكله

ndeysaan maa ngi ciy ziar bu baax sama mag euh, soxna Awa Diagne maa ngi ciy ziar bu baax ci diwaanu Darou Khoudoss waaye di ci ziar bu baax sunu sëriñ euh, sëriñ Cheikh Diaw Mansour maa ngi ciy ziar bu baax di ñaanal jàmm waaye di ñaanal baax ay rakkam ak euh, mbambaan njabootu Mbaye sëriñ Diaw Mansour ñëpp maa ngi ziar bu baax di leen jaajëfal la ñaan sunu borom taala sunu kàddu fekk leen ci jàmm waaye di ñaanal baax sëriñ Baara Mbacke man tam maa ngi ciy ziar sama xarit sëriñ Baara maa ngi ciy ziar bu baax sëriñ Ahmad Diaw mu tamit fàtte ma ko maa ngi ñaan yàlla sunu borom taala defal jàmm ak xéwal tey wax na rek kenn ku nekk si bëggee jaar ci émission mën nga jaar ci 33 966 68 99 33 966 68 99 wala nga jaar ci 30 3 78 94 30 3 78 94 wala nga jaar ci 33 979 38 46 33 979 38 46. bu ko defee boo duggee nga daal daal ñaan ki nga xam ne moo la neex daal ko xasida bu la neex wala si karkat bu la neex ñu ànd ko wax rek képp koo xamante ni ah, daal ngay dugg rek ko defee képp ko la neex ko ziare ndax émission dañ émission leen ñëpp lañ ci ànd ak incha allah rabbi ci kanam tuuti barke Sëriñ Tuubaa

وجهلا دوما قد وأضحك باسمنا أنت أنسي وجهلا دوما منك أسمي على الله سلام وجهلا دوما وأضحك باسمنا

ndeysaan sëriñ Saliou Diop maa ngi di ziar bu baax di jaajëfal moom di xam ne day bëgg ki nga xam ne mooy sëriñ Xadim Gueye ah, sëriñ Fadilou Seck moom maa ngi ci ziar di jaajëfal sëriñ Cheikh Bey sama xarit maa ngi ci ziar bu baax di ko jaajëfal di ko ñaan yàlla suñu borom fekk yàlla fekk ko ci am ci barke borom Tuubaa وجهرا جلدا وأعمى سرا وجهرا وأعمى بك وجهي على الله ثناء وجهرا وأعمى Bul fàtte

dalam santane bul fàtte bokkam ci dunya la fàtte yàlla bul fàtte te see ko baax ci dunya bul la fàtte dalam santane la faddu laka saafal la jëraa ndaw leen setaane ndem na say gët ba sax maa ngi ci siyaar bu baax soxna Amina baax mu tamit ci siyaar baax ah, soxna maam Bousso maa ngi ci siyaar bu baax dëkk jaajëfal nga ak ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey ci kër gi ñëpp maa ngi leen ci jaajëfal di leen ci siyaar di leen ñaan suñu kàddu suñu borom subhanahu wa fekk leen ci jàmm di ñaanal mboolem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp dan bis bi nga xam ne moo leen dëg mel xam ne moom la ñuy dab ak moom la ñuy wut suñu borom may ñu ko ci barke borom Tuba ak li nga xam ne boo ko tuddee rek ñëpp ñëpp tiit borom kër euh, mooy li nga xam ne mooy xar yàlla suñu borom subhanahu wa taala ko ci barke borom Tuba dañuy àgg si ak jàmm في سورة الخمران لجد لجد أتدعوني بالسلطة في سورة وأولي الأمر منكم بكرر بعدم يربي دور النسوان بكرر وقرنا ذاك والكسوف ربي فلقوا نحو الوليمة اجي الله أبكر كرا يبكي الله أبكر كرا yàlla am teraanga yàlla am teraanga yàlla am teraanga

Sall maa ngi siyaar baax Al Khalil maa ngi ci baax Oustaz ma ko waaye di siyaar bu baax al Oustaz Bamba Koura Thiaw di ñaan sama borom subhanahu wa taala ki nga xam ne yaa liggéey ci daara jooju nga xam ne mooy daara Serigne Saliou Mbacké ñu di ko daara Nourou Mahaydi yàlla sunu subhanahu wa taala dafa leen jàmm ak képp ku fay jàngee ak ku fay jàngale rek maa ngi ñaanal jàmm ak xéwal fàtte ki nga xam ne mooy Serigne Mor Diagne sama xarit la Serigne Moustapha Diop bëgg Serigne Saliou maa ngi ñaanal baax suñu borom dafa jàmm ak xéwal isa maam Marème ko ci ziara soxna Ami Guèye moom du fàtte mu nga ci yoonu Dakar waaye fàtte ma ki nga xam ne mooy maam Fati Guèye ma maa ngi koy ñaanal suñu borom dafa ko jàmm ndeysaan maam Diarra Guèye mi tamit ci diwaanu Kër Ñang maa ngi siyaar baax di jaajëfal ak mboolem ki nekk foofu ci diwaan boobu yónneen ba bunu xàlloo da ko déggal yor gaal ci bàgg yàq naa way yónneen ba dootu gaaw yàlla dogoo sëy am assurance bunu waajal mbàkk doo si daani yaayu baay fi daa ñëw yaa fi yor mbooti ci Ahmad ku naawaane yaa fi daani yaayu baay fi daa ñëw yor mbooti Ahmad ndeysaan Salaam da ci barkatoo di ñaanal ki ñu ko ñaan suma soxna fekk jàmm waaye di ñaanal xalifa bi nga xam ne moo nekk ci diwaanu Salaam yàlla suma subhanahu wa yàggal ko fi loolu ci ànd ko wér ba mboolem li nga xam ne mën a fas liggéey ci boobu gox su mborom daak koy defal comme ni ko bëggee moo tax nga gëm dogal ya atan yéen ba gëmum dogal te xew ndigal fugraate nii la sëriñ bi dem boo faate seen biral wi seen burul bi di sa mboolem Sénégal te teewu koo kalaame te teewu koo kalaame te teewu koo kalaame de kon di ziare ah, Samb ba lépp lu muy def rek yàlla suma sama defal ko defal ko ko defal ko ko ci lu ko may jotal barki borom Tuubaa waaye di ñaanal bu baax Serigne Extra Samb su mborom yàggal ko fi loolu tubéral ak mboolem li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy liggéey ci xasida Serigne Tuubaa yi di ci durus ak di ko yëkkati yàlla su ma defal leen defal leen ci jàmm sëriñ Modou Thiaré fàtte moo ko maa si bëgg di ko siyaar bu baax a baax. ndeysaan. ànd ak gudd tànk la loore yaa fi demoon ko naak kongo fekk Sëriñ Tuuba mi ma kongo yaa bari ay ndam si borom gaawar yaa bari ay ndam si borom gaawar yaa bari ay ndam Sëriñ Musaa Seydu sa baay ma bari ay ndam fi bari ay jaloore yaa demoon borom géej ga romb tuure yaa yóbbu dem mi nen yaa dem faraax dem marwata muzdalifa dem marwata muzdalifa ziyaare fi madinati nawara ziyaare fi madinati nawara mu ne bura gàkkar xaar nga sawara Ahmadu Njaay ma yara Ibrahima Ahmadu Njaay ma yara Ibrahima yaa leen xamal maqaam Ibrahima rëmm nga leen tàggoon nañu tàggoon nañu sunu baa jaar nan koy ba jaara bamba ajaale ngaak mbër wama taale say doom sa bamba samba yaqoo sam koom foppa bi ba fa rasulullah it ko sëriñ Tuba damul wallahi si borom nga ngañ ci wàllu yàlla si borom gaawaan salanglu nga ngañ ci wàllu yàlla fes nga santal teewul yàlla a boom daawaan benn baat santal teewul yàlla e yow la faay ca teg na fi maa a yow la faay ca teg na fi maa rabb ngir xam ni man nga xalsu man nga xoddu yoon murit sant nga seen raaya soo def bu ñu ba mi daaya sa boor sa boor la ngay xëccoo fi ba gànnaar naka nga jóg ñu tuddee si leen Moxtaar yaa jëkkaañ Makka ci yoonu Bamba yaay santam ci yoonu Seexi Bamba lu nekk yaa ko jëkkaam ci soodaan yaa nuñ masal yaa nuñ masal si borom gaawaan yaa nuñ masal yaa nuñ masal si borom gaawaan yaa nuñ masal yaa nuñ masal ci ay daan yaay ñu mbala réew mi ci anu décor sid borom gaawaar yaa ñu balal réew mi ci at bekkoor yaa daa yaa daa lebal waa doora yeeg fi buur jirim yi ak miskin yi ak ñi baayo ak muslukat yi ak waa juñal nga amaana kuy amaana kuy ndokki bi tax baaraam baa te xam yaa sanal ndeyam baayam baa mu ne fala suxlu ba far sa ndam mu ne fulaa gotti suul sa jëf yaa war a sant yàlla aliyam baat ngir foo taxaw rangoo nga neeli baat baa bamba takkal na la bamba takkal na la medaayi baatin sid xalam gaawaan bamba takkal na la medaayi baatin amul ku tekki amul ku tekki amul ku kun mburum sëriñ Tuuba ma ne fu ko daan mu ngay tëkkay ndombaam ba say diiwaan mburum sëriñ Tuuba ma ne fu ko daan mu ngay tëkkay ndombaam ba say diiwaan mhm. mburum sëriñ Tuuba ma ne fu ko daan ma ngay tëkkay ndombaam ba pii di laal ma man ta njaay wàcc na jur na yaaram ma man ta njaay wàcc na jur na yaaram ma man ta njaay wàcc na jur na yaaram di limaan قال ولا انت معلم يا رب قم قم لو سجن باخادم ولاي واجنك خرنا ما سم تخلنا لدينا جاي باخي waaju ko dégg wura muñ balaayi te war a muñ nattu yi ak mbokaa ak bi te war a muñ nattu yi ak bi te war a tuub bon bari ak bakaar bi ilaa tub tub ila tub tub ila tub tub توبة نصوحة من كل ما فعلته خبيها بول كون خلاتني برنوسة بول كون خلاتني برنوسة dinaa fi way way wu defal waa suuf sëriñ Moussa ne bul ko xalaat ñi paranosa danaa fi way danaa fi way way wu defal waa suuf si mas na la min seytaani wa kullu aasila di kon maa siyaar bu baax sama xarit sëriñ Jibril Fall moom siyaar bu baax day bëgg siyaar bu baax ak mboolem ki nekk foofu ci siyaar di leen ci ci siyaar bu baax soxna Naar Ndiaye moom ko ci jaajëfal di siyaar bu baax soxna Daba Fall moom tamit kàddu yàlla suñu borom sa dogal fekk ci jàmm ci barke borom Touba di ñaanal bu baax moom sëriñ ak saa sam mu yàgg fi loolu te ànd ak mu ne na dem mbootam yaa Cheikh Madul Mamoun ak rakam yaa sëñ yow nañ ko ruuri may day waature te bamba boole ni ci góor diiwaan ndeysaan dëgg ndaka noonu bu ñu di ci ki nga xam ne mooy Serigne moo tax maa ngi ci kum galam gi sootaan noo ngi lay siyaare yaa ngi jàmm su sootaan kum fallu ado yaa ngi naadaa kum galam gi sootaan noo ngi lay siyaare yaa di samsu sooda fallu yaa jugaara ndeysaan sëñ Modou Grace Mbaye bi nga xam ne moo la tëj Serigne Fadilou Mbacké maa ngi ciy ziar bu baax sama yaay soxna Mati Diop ci diwaanu Sonatel tamit day maam tey ziar di ko ñaanal si ko jàmm ak xewal ki nga xam ne sëñ Fall rek ma nekk ci xol bi soxna maa ngi ciy baax bismillaahi may ñaan mi dina ko naan xel mu jubbu bësoo ndeysaan di ñaanal baax sëriñ Baara Mbàkke moom sëriñ Fàdilu yàlla suñu ko Allah def ko maanaam tax ñu si barkeem si barkeem bu borom Tuubaa waaye di siyaare baax sax mos la Mbàkke sëriñ Baara yàlla suñu borom taala yàggal lool ci wéral ko sëñ Fallu way ku yàlla baax war na waa dem soxal ñaanul bamba nga doon kuréere du yàlla na baaxal baaxal wala fallu mbër mu mel ni giwaay duñ la fallu fallu lay

si fallu fallu ay gadaane war na gaa yi na fallu rek leen neex way wi am na seere fallu ay gadaane war na yi na fallu rek leen neex way bi am na seere anu ay kalaane wala gaay na ne anu le kalaane wala am na seere mi mi tooki jal bi daa de jeglu te koy tere te mi lofu ba xiif bee tar ba mag ñi reere te mi lofu ba xiif bee tar ba mag ñi reere sëñ Fallu ñëpp naa ko mbàkke jëmi xew te dekke noo ngi ñaan nga dekke fi ne ji fi joore bàyyi soxna Fatima ka baa mami Bamba Njaay Fallu Ramo raful la dem timni meng a toojum simbati di ay jaloore Ramo raful la dem timni meng a toojum simbati yaa sañ bay jeex dali ay Ramo raful dal jàmm te ndigal Oustaz Cheikh Faye ak mboolem ki nga xam ne yaa ngi jàng ci daara jooju daara Serigne Fallou Mbacké jooju maa ngi la ci bu baax jaajëfal daara ja mooy Serigne dafa ko jàmm ak xéwal waaye di ci ziar bu baax ki nga xam ne mooy soxna Xawa Jaw moom tamit suñu yaay maa ci diwaanu Taïf di ci ziar bu baax Serigne Naar Diop moom tamit maa ci diwaan boobu ñu ngi yàlla suñu borom dafa dafa leen jàmm te dafa leen xéwal barke si mbakki sama Nday Jaw fàttali ko ñu ngi ci ziar bu baax di leen jaajëfal sama sama sunu nijaay Serigne Mansour Diaw moom tey ñu ngi ci ziar di ko ñaanal jàmm ay Cheikh Mourtala defal murid yi jàmm jeg yu neex yi moo waral murid yi mel ni ñuy xawaare ko defal murid yi jàmm jeg yu neex yi moo waral murid yi mel ni ñuy xawaare ko defal murid yi jàmm jeg yu neex yi moo waral murid yi mel ni ñuy xawaare ko defal murid yi jàmm jeg yu neex yi

léegi ñax yi dem na taxi foor yi ñëw na léegi sax dëng joñ ay ganaar di reer léegi ñax yi dem nan taxi foor yi ñëw na ñëw na léegi sax dëng joñ ay ganaar di reer si falu bi si foor yi ñuy sol make yaa nu koy jar ko ci gis la muy sol lépp day waloore bi si foor yi ñuy sol make yaa nu koy jar ki nga xam ne mooy Serigne Modou ki nga xam ne mooy Serigne Souhaïbou Mbow jàngkatu bokkoon ci xulafa u Cheikh Ahmadou Khadim Rasoul waaye di ñaanal baax ñëpp nga xam ne mbooloom jabaru Serigne Touba gépp suñu borom subhanahu wa taala yokk seen leer seen i barke seen taar seen i barke ci barke Mouhamadou Cheikh Mouhamadul Fadel waaye dëkk naka loolu ñu ngi ñaanal baax ak ki nga xam ne mooy Cheikh Saliou Mbacke ak njabootam Cheikh Saliou Mbacke yàlla sama sama doole ko ay leer tas ci nga xam ne moo fi nekk di moo fi nekk di Serigne Touba di Cheikh Sidi El Moukhtar Mbacke suñu borom yàggal ko fi loolu tëral ko ba mboolem ñi nga xam ne mu fas yéene liggéey suñu borom ak matale comme ni ko bëggee kon Serigne Sohi boobu bi la leen ci kanam وهبدا أخنى يدي اللاتي سد خمسا إلاه بالمناجات وهبدا أخنى يدي اللاتي دل العلماء والأولياء من لا يزال قوتي وأولياء من لا يزال قوتي وأولياء دل العلماء والأولياء من لا يزال قوتي وأولياء من لا يزال قوتي وأولياء خشيتي فاخت غسايد الكرام ولتقود عبرا خير المرام خشيتي فاخت غسايد الكرام ولتقود عبرا خير المرام عديتي مخجلة كل المليم كان مناسا واخسف المريم ما توجع نصار الله ليب إله إله إلا الله ndeysaan sëriñ Soy bu maa ngi si bëggee ki nga xam ne mooy sëriñ Kàbbu Mbay di xarit si sëriñ Soy bu Mbopp sëriñ Kàbbu ñu ngi la ci ziar bu baax di la si jaajëfal sëriñ Kàbbu Mbay di animateur nekk ci rajo Baye benn FM ci zone Boa Baye benn FM ci Touba yàlla ko sama sama taal defal jàmm sëriñ Kàbbu ñu ngi la ci ziar bu baax di la jaajëfal ويا مقدا فؤادي دهرا مصواو يا سيدا في المهال خلف رواو ويا مقبا فؤادي دهرا مصواو إن أنتيت الوجه الله ساهر لكم أخبين إلى ما أرجو وأسواه بسم الله الرحمن الرحيم عسى مطلب شفاي في توسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم عمدا لمنزله دنا ودائم ومنسل شفاي والدواء حمدا لمنشل دنا ودايا ومنشل شفاي ودواي من حمر العباد بالدعاء ليرفع بأن البلاء ليرفع بأن البلاء من حمر العباد بالدعاء ليرفع بأن البلاء ليرفع بأن البلاء ثم هلا من ثم زابرت يبرح بلا بدح وفاس بالغرد ثم هلا من غش من تسامرت يبرد بلا بل وفاز بالخرد محمد كسب سيدنا محمد محمد كسب سيدنا محمد محمد تبيبنا لكن أستر سلام ربنا الكريم محمد تبيبنا لكن أستر سلام ربنا الكريم وعلي وسب بسم الله مرتاجس الأسرى من سفاعي مرتاجس الأسرى من سفاعي وعلي وثبت لا لا مرتاجس الأسرى من سفاعي مرتاجس الأسرى من سفاعي وعسوي إن يوم صنجاي ملتقيا أو المجيب بدهاي عسوي إن يوم صنجاي ملتقيا أو المجيب بدهاي وازكي إليهما من درر ختم الشنيعة عراني معتدر وازكي إليهما من الدرر ختم الشنيعة عراني مختدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادها درنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادها درنا بجاه رمضان رمضان والله يا رحمن يا ريان يا برنا يا الله يا برنا يا كريم يا سام والله يا رحمن يا ريان يا بر يا الله يا بر يا كريم يا سام اغفر ربنا تقبل منا ومن إيمانا وتجاوزنا ذنوبنا تقبلنا وممنا وتجاوزنا وانسلن يا ربنا خرنا ما كان من نخاف ما كان ما نخاف ما كان من نخاف ننصر نخم ذو الأعداء طوى المصايا وقوى الآفات والرزايا ذو الأعداء طوى المصايا وقوى الآفات والرزايا وقوى على تات وقفا كسلا وقفا كسلا في لوخات وابن سلطاتا وقفا كسلا وقفا كسلا في لوخات وابن سلطاتا وقفا كسلا وقفا كسلا في لوخات يا بر يلتي في أمهات يا بر يلتي في أمهات ndeysaan di siyaare bu baax Serigne Fadilou Faye moom tamit di bëgg ki nga xam ne mooy Serigne Soy bu boobu waaye di siyaare bu baax Serigne Cheikh Diop ak Serigne Ousmane Diop moom tamit di siyaare ci diwaanu ñu ngi leen ñaanal bu baax suñu borom subhanahu wa taala defal leen jàmm ak tawféex ak xéwal ci barke borom Touba di leen di leen ki nga xam ne moo ci Serigne Soy bu boobu يا من لوى أمر أسف yaa man la waa. ndeysaan nag di ziar bu baax Serigne Cheikh Ndiir ak Serigne Modou Cissé di leen ziar bu baax ak mboolem ku nekk ci gox boobu ci diwaanu Touba di leen ziar bu baax. ndeysaan. أمسك جفاءك ما كان دهاي ولا تهامنا بالابتلاء waan si li na fa maakaana dorre di siyaare bu baax mboolem ki nga xam ne yaa ngi diwaanu Kër Ñang foofu ci diwaanu Kër Ñang di leen di siyaare bu baax ci li nga xam ne moom sëriñ Soy bu waaye ndikk ñaanal bu baax di ko tollee ñaanal bu baax suñu borom dafa ko jàmm ak tawfeex di yàggal ko fi loolu moom sëriñ Soy bu boobu waaye ci siyaare bu baax soxna maam Fati Gueye ñu ah, ngi foofu ci diwaanu Kër Ñang soxna maam Madame Dieng moo ko ci siyaare bu baax ñu ngi foofu ci diwaanu Kër Ñang soxna Ndeye Fatou Sine sama xarit maa ngi koy siyaare bu baax moo ci diwaanu Sonatel sëriñ Modou Thiaw maa ngi koy siyaare bu baax di ko siyaare bu baax وحسن الهاجلا ونجئ واف والتب بهم ولا تعيش بكسر ذنبهم ونجم واف والتب بهم ولا تعيش بكسر ذنبهم فإنهم إن سوك يا أب لغفلة لم ذلكوا بك فإنه إن سوك يا أهاب لغفلة لم ذلكوا بك فإنهم دائما لا تقدرهم على ملائكة دفن يسر قلوبهم ليس تميل أبدا ربنا كم صفى فاغفر لي وجميع المفاسد واسم الأخمارين لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المسالي لا حول ولا قوة إلا بالله لا للناس زرت الله بكتابه إلى دخول الجنة جاورت بالفرقان ربي المهان malaktu nafsiya wa saasaatu lahi ndeysaan di siyaar wax ne comme ni ñu ko waxoon léegi rek dañ lépp Serigne Touba la waaye tamit ñu ngi lépp am rek nga xam ne Serigne Touba ndax jëmm ji dégg ñu ngi ni jàng ndeysaan am gisam neexul ndeysaan moo mel noonu ndax képp ku jóg da ngay daal di da xeeñ da ngay xeeñ ci Serigne Touba waaye nga yaa di bëggee Serigne Touba ndax lii rek doy ah, naa da sant yàlla bu baax ndax bu ko neexoon mën a nekk ci yeneen ak yeneen waaye gis nañ ko dem ko baaxoo di amale waaye di ko ñaanal yàlla sama borom taw defal ko ndam barke borom Tuubaa ci xasida seen Tuubaa yi ya rabb la fil ukhra ya wan khadali bilan tal wan khadali wan khadali bilan tal khira wa rafakhni ila al jinan ولسواي سهرتي ترسلني لين والفجار كون بديع العالمين جاري أكرمني بديه بالكتاب وسنني عن جال بالهتاب أكرمني بديه بالكتاب وسنني عن جال بالهتاب لم يلهني على دخول الجنة غير البشارة ليس الملنة لم يكن إلا دخول الجنة غير البسارات ليس غير البسارات ليس الملة لم يلخني سجن ولا وهيد غمري إلى الجنان هيد لم يلخني سجن ولا وهيد غمري إلى الجنان هيد أولياء ndeysaan ndeysaan waxaatani ndawa waxaatani ndawa bi an way baddi balaye ni xaaliq min si waawu waxaadima naa sar waawu kitaabu rabbi kan wa kunto laa walilaayi laa walilaayi bi sakkantu bul nag pour fani lakk daaru wal ma faasadi salaamata waa salaamata am jaali billi faasadi akramani laahu sëriñ Modou Ndiaye si kaw laa dem nañ ko ci ziar di ko jaajëfal waaye sëriñ Moustapha Sène fàtte ñu ko ak mboolem ki nga xam ne ñu ah, ah, ngi a baax foofu ci ziar di waaye di ci ziar baax ak xam ne yaa ngi sama xarit sama rakk ndeysaan maa ngi ko ñaanal jàmm sama rafet jàmm ak tawfeex ndeysaan ziar baax sama yaay ah, soxna Soda Diop waaye sama rakk soxna May Diop maa ngi ci ziar bu baax di ko jaajëfal sëriñ Alaaji Diop moom dama ko ci ziar ak papaam ah, sëriñ Ibrahima ci ziar baax di ko jaajëfal ndeysaan ndeysaan comme noonu ñu ko baax am rek suñu gaal bu ko defee xam ne mooy Serigne Soy boobu dañuy seeti ki nga xam ne mooy Serigne Cheikhouna Mbaj ah, di ci siyaare bu baax mboolem ki nga xam ne yaa ngi bëggee Serigne Cheikhouna Mbaj rek mooy Serigne Saliou Diop moom tamit day bëggee ki ne mooy Serigne Cheikhouna Mbaj Serigne Cheikh Diop fàttama ko Serigne Ousmane Diop moom tamit maa ngi ko xam ne mooy Serigne eh, Cheikhouna Mbaj ndeysaan ndeysaan mm-hmm. seen sëriñ Cheikh na Mbaj ma toog ca diwaanu Sora maa ngi ci ziar baax di jaajëfal mbalu ki xam ne yaa ngi foofu ci diwaan boobu di ci ziar baax ah, sama xarit ah, sama bañ soxna Aminata Yadd maa ngi ci ziar baax di ko jaajëfal di ko ñaanal suñu borom fekk ko ci suñu kàddu fekk ko ci jàmm waaye di ci ziar baax sama xarit soxna sëriñ Modou ah, sëriñ Modou Yadd ak papaam sëriñ Baye sëriñ Yadd maa ngi ci ziar ci diwaanu Sora di la waaye Fadilou Ndiaye a ngi koy siyaar baax moom tamit day ki nga xam ne mooy Serigne eh, Cheikhouna Mbaj ci siyaar képp comme nit yaa ngi bëggee ki nga xam ne mooy Serigne Cheikhouna Mbaj maa ngi lay ci siyaar ci kàddu gi. ndeysaan. Allah الملك يا خود يا نبي الرب يا رب العالمين مستمر من صلاتك مع دينك وآلتنا دار السلام مكان يلدها من بدار الفتى بدار ما استمر من صلاتك مع دينك مكة والمدينة من دار فتى وبايتما دار السلام مكة والمدينة من بدار الفتى وبايتما مسكنه وسلام كما بالمكة والمدينة من بدار فتى فقد فتنهم يا الآخرة إذا فتوا خلقوا في كل خير أتوا دنيا آخرة تبا تبا تبا سبا فسبا لهم دنيا وآخرة عذاب على مؤمن غير دنيا وآخرة تبا تبا تبا تبا لكل خيرات تبا

seet sëriñ Adama Sall maa ko ci seet di ko jaajëfal waaye sëriñ Ndiaye moom tam maa ngi bëggee di ko jaajëfal bu baax ak sama xarit Baye sëriñ Sall maa ngi ci seet baax soxna Maguette Faté ko ak soxna Lay Diop maa ngi ku mbokk dafa mel ni rek waxtu bi nga xam ne ci waxtu dafa mel ne daan jot kon su ko defee dañuy daal di tàggatoo foofu ci nga xam ne mooy Serigne Cheikhouna Mbaj bi waaye xam ne saa moom la ñuy tëjee émission bi waaye ba tey moom la ñuy tëjee émission bi di ñaan jàmm si réew mi di ñaan yàlla suñu borom di ñaan yàlla suñu borom ñu ci yóbbu ci jàmm barke borom Tuubaa te lépp luñ ci ñaan suñu borom nangu ko lépp luñ ci def suñu borom ful ko day làqal làqal ñu ko fa yàq yëgut ci barke borom Tuuba ah borom kër yi nga xam ne nag saa yoo tuddee rek xar ngaa ji xaw a tiit xaw la seen de tafit yàlla suñu borom subhanahu wa taala ko ba lépp jaar ci yoon lépp jaar ci yoon barke borom Tuubaa yàlla suñu borom subhanahu ci jàmm kon maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ñëpp ñaanal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh لكن علمت وإلمي سوف ينفعني بأن سات ميل في المقالات كانت موائد وقاب لا مثلا وما